waaw loolu lu ne la ndax Istanbul ñoom Diaz Balla ko fa. mais yéen seen combat taxawul woon amul ko ko fi tëggoon yéen. Ah, moo gën ko tëgg. Ah, ndax moo gën su ma duggee 2STV bii. nuyu ñëpp nuyu moo gën fan luñ ma war a wax. fan la combat dara duñ la wax dara non si moo gën ku baax la dëgg la suñu combat a buuse. non combat bi toll kay laa baax xam ma. boo déglul moom dara dafa daa ko sikki rek moom mu fi de xaaral ma sikki loolu def na dañ naan da nga ko fàtte rek après nga nuyu ko mais dara du la day ku baax moo gën waaw d'accord eggal kon bàyyi ñu ngi ñëw may ñu ñu wax kii après nga doon ñëw ci moo géet normal dégg nga léegi yow nekkal fi nga nekk ci projet ci projet maire bi waaw aussi Réfane dafa amul stade vraiment loolu neexul amul stade amul stade ba pare am na yoon boo xam ne tey suñu yoon yi boo dafa yoree oto yoon bi neexul raanaa la boobu aussi projet la pour nu defar ko ak marché bi mhm. ak terrain yeeg suuf si ak aussi Réfane amul lycée foo leen di jàngee kon yéen. ñetti classe da nga ñetti classe te Réfane population bi même amuñu centre de hôpital. am poste de santé. mais mais maire bi ngay nar a àndal moo fa nekkoon. maire maire bi moo fa nekk. te loolu yëpp am dara nag centre de santé bi moom. ci ministre de la santé la tagge. ah Abdoulaye Diouf Sarr. naka la tagee foofu ñun. cotisé nañu ñun waa Réfane ñun waa Réfane nañu parce que bu am xaay bu bëri ñu nekk ay que ne cent mille dix mille loo am moom moodu moodu yi. depuis sept ans ngi euh, cotisé cotisé bu am xaay bu bëri. mais ministre la santé la xaar pour mu jox ñu autorisation nu commencé. bu ko deful du man du ma ko woteel fii Dakar. <laughs> yow Dakar ngay wote wala wax Dakar ñu boycotté. ah oui bon dina ko def. bu ko deful balaa élection yi maa wax waa Dakar ñu boycotté ko. ñu bëgg a def waaw mm, mm, euh, Diouf Sarr. yow yow mm-hmm. fexeel ba yow yow sa liste baaxul. non man moom damay gagné yow amoo kaddu. Mm, man damay gagné man damay gagné Réfane. waaw déglu rek mooy gagné moom. waaw déglu rek parce que bisu lam rek aussi il faut nu boole ci dara. dëgg la loo ci boole yow. maire maire. nekkoo ko. maire maire mi ko maire nga. waaw loolu sax amul xaj na parce que sëñ Sarr ma. mais ñu sa liste duñ la waxee lan lañ la wax. non man bi non de xam nga liste yi la mil la yem mil wi. ma ñëw mil bi deux minutes. Eh, mil bi waaw. sero et mil la. loolu deux naka. mil wi de la laa dugg ci. suupa mil wi. mil wi wala mil wi. mil wi. mil wi zéro heure mu jot nii heure bi ok laa fa dugg si ci. baana ba tey yow doo ñëw sax. sous préfecture heure bi nga ñëw moo existé wu. aussi Assane Ndiaye. yow promoteur moo ma def ni Assane Ndiaye sama xarit uh-huh. moo ma jox lii. ah waaw bàyyi ki la ko jox ñu ngi ñëw. tëjoo Assane Ndiaye ku baax sama xarit émission baa ngi door a tàmbali ñëw ci wax bu am importance. waaw ah. ah. parce que dama war a tourné. waaw moom mooy. gis nga nag xam nga ñoom ku nekk waaw kaay wax la waaw développé si kenn ku nekk di rafetlu di wax rek dañoo may wax parce que depuis sànq yaa ngi wax. bu dee wax moom mën na ko émission bi normal. un deux trois rek nga naan wuyu ma yow. wuyu ma maa ngi bisu yow sama jigéen nga. mais mais ba fi toll nii gërëm non non non gërëm ma dafa am lu may wax xam nga dafa am lu pourtant ñu ngi ñëw ci question yi. waaw non damay ñëw ci question yu pertinent parce que tàng da nga wax benn affaire xam naa su question yi ñëwee day tàng léegi dafa am avant question yu ñëw dama. la may jam de. Mohamed Benzeloum. Kaolack futur maire Kaolack. dafay gañ Mohamed Benzeloum. ak Sakho. Sakho la déggee nga dee Pathé de Modou Ndiaye raxma Sakho war na ma may loolu dafa neex. te ku la defal lu baax dafa jógee ci papi dem ci Modou Ndiaye raxma ay Pathé am na kenn Kaolack nan ma xaar maa ngi ñëw. ak Mohamed Benzeloum futur maire ak Kaolack ànd ak Serigne Mboup waaye Mohamed Benzeloum kenn du moom. c'est normal. waaw bu nañ ma xaar Saalum Samb mooy gagné président collège départemental bi. Saalum Samb non non. Saalum Samb mooy gagné. déedéet. waaw léegi est ce que mën nañu est ce que mën nañu mbuur laa wax mbuur mbuur laa wax. wuli wuli liiru léegi. mbuur Mamour Kañ ñëpp a nekk. léegi léegi Mamour Kañ du gagné du gagné du gagné président Mamour Kañ. Saalum Samb mooy gagné. président Mamour Kañ du politique wul. waaw day def social. ah politique wul ah politique ay social lay. d' accord d' accord léegi dem ci waxtaan bi. ok kon baax na. waaw maa ngi fu mën liiru. waaw big. liiru ah, daf ku mu mën maa ngi gos bisu. ah, ah gos bu daf maa woo ne may na wulli téléphone. waaw d'accord léegi dama envoyé message. attention euh, ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ci ci ci yooyu yëpp. non euh, ketchup ketchup euh, ma fi nax ay man xam nga sama yow. man man eh, ku ma fi dig téléphone joxoon ma ko damay waxaat. gos droit may na téléphone. man de si ji li seen téléphone moom di sama téléphone boobu day mu door a doon gos may na téléphone. maa la koy jox. yow yaa baax waaw wala aca bijou yaa woon ci nit ku baax a ngi daan na ma de bëri nañu mu daan ma. wuli tamit bëri ngeen non kii maa ko daan. kii moo daan kii kii daan ma ma daan kii. ah, ah foo ma daane daan bi lañ daan foo foo ma daane. bi waxal drapeau maa ngi sama kër kii moom kii daal léegi kii mooy numéro un. sama jabar maa ngi koy nuyu boobu léegi maa ngi rafetlu. ñaar ñu ngi lay sama jabar maa ngi nuyu sama jabar. ah wuyu leen am na solo de. kii moo fi mën de. sama ah, femme kii moo fi mën xam nga man dama def benn affiche. Eh, daan ne euh, affiche bi ñu def. <laughs> dama ko def exprès def ni dama invité ay lutteurs professionnels. Mm. mais moo professionnel boobu Ketchup. Mm. daj na ñu bari Sénégal. Euh, kenn professionnel waaw waaw. <laughs> ñun ñëpp a kenn du fi professionnel ñëpp. professionnel mais yéen professionnel mooy lutte bu mën a bëre bu aay. ku mel ni Balla Gaye mooy professionnel. waaw d'accord waaw bàyyi ma ñëw mayoo ma ñëw damay am question mooy lutte waaye kañ ngeen ak Modou Lo waaye comme li ko biisu wax naan di changé bi mu changé d'accord maa ngi ñëw non non mais doo waxate non waxuma. dafa am def léegi ma ma ñëw dinañ ci question bu am important parce que dañu defar affiche bi mhm. ñu bind euh, euh, Kirara ma koy nuyu de passage Kirara depuis depuis France mhm. ma koy nuyu parce que moom mooy gérer page yeeg ak yëpp affiche yeeg yëpp moo koy defar rafet na affiche bi rafet na Kirara euh, dafa bind jeu de mots bi ñu def mhm. ñu bind lutteur professionnel juum na waaw na ko di. yow yaa ngi professionnel boobu professionnel. yow yaa ngi professionnel boobu. dajji réew mi yëpp. waaw Ketchup tey boo doon euh, euh, euh, jox sa bopp boo doon graduer sa bopp ci ci ci turu lutteur ci fonction lutteur. lan ngay wax. yow ndax da bokk ci da nga bokk ci ñiy ree lutteur professionnel wala yow lutteur amateur nga kii nee na kenn professionnel ci yéen. moom lutteur lañ ko bindal sax waaw léegi. kër Diop nag faaw nga yokk sa voix bi quoi. kër Diop dafay tiitar quoi. sa voix bi yokk a yóbbu. kër Diop dafa may dee de. <laughs> daa bëgg a kii dafa may tiitar. wax li fa la ñu ko meer te yëgu ma ko. léegi yow sa oto bi rafet na rek ngay tiitaru bu bële. amu ko teew ñu lay conseillé duñ leen ñaan ñu may. amu ko ah man dam naa lan la kër Diop lan la waxal. lii lii am na oto bu bees. léegi mu ñëw bu ma soxla waaw doo leen ñu may yéen tamit nag. Mm. ñaari plateau mënul am. man bi may bind bi ñuy bind loolu fekkeewu ma ko biñ ma koy yónnee damaa toog rek ñu yónnee ma pour ma poster. liiruma ko sax. gis naa ci sama photo daal xam ni war naa koo dugal. léegi nag lutteur professionnel boobu ñu wax. dama cee ànd xam nga lu tax. bisu foo tourné gis ma. waaw dëgg la. réseau yi àdduna bi man lañ bëgg. koo taal téléphone am da ngay gis kanamu këccëg. Mm-hmm. mais liiru jaan a ngi nii duma bàyyi ma fen fulla rek laam dëgg la bu ma duggee làmb dañuy bàyyi mbër ya fa ne ñëpp ñëw samp ndënd yi sama kanam di ma tëggal mm-hmm. di ma wayal alaaji mbay mi fekkee na loolu daa weesu professionnel dëgg la daaneel mu benn mbër ah. boo xam ni daf nañ mbër sutu ma de. mais Ketchup yow dafa mel man pour man. mais fi la laajee yow. waaw ñëwagoo ci parce que li ngay wax nii en tant que influenceur la mais lutteur professionnel gëj nga bëre yow Ketchup. mais je suis lutteur professionnel. et pourquoi. parce que je suis tout. <laughs> tout comment. je suis je suis dans l'arène jusqu'à maintenant. et je fais des des choses extraordinaires. dans l'arène à part lutteur. à part lutteur je suis. trop trop trop trop extra extraordinaire dans dans l'arène parce que si j'entraîne dans l'arène les personnes viennent sur moi que je lui donne de l'argent oui. et des viennent sur moi di ma tëkku <laughs> man man def ma dara ci lamb ñu may tëkku mais yow parce que ci defet nga jógee yow waaw ko ñu mais mais mais mais mais depuis longtemps t'as pas eu de combat depuis longtemps j'ai pas eu de combat parce que les promoteurs ne fait ne fait pas ne donne pas beaucoup d'argent. non moo gën pas de ah? ngir yàlla. ngeen xaar ku ne na nga xaar sa tour yow waxal. moo koy joxe. Mhm. woo nañ ma fii non non continue sur cette en français tu parlais tout je suis lutteur professionnel. Mhm. ça c'est par force. parce que un je suis dans je suis toujours. dans la lutte. Mm -hmm. et je fais des choses extraordinaires dans la lutte. Mm et les gens même les supporters même. les autorités même. mais depuis longtemps t'as pas signé de contrat. parce que mon contrat n'est pas facile. Et comment je coûte cher. pourquoi. parce que c'est Ketchup. <laughs> mais est-ce que y a a des, a, a, mais Zoom pourquoi toogoo fii. est-ce que y a des promoteurs qui vous contactent jusqu'à présent pour pouvoir. Euh, vous hmm? est-ce que y a des promoteurs qui vous contactent. il y beaucoup de promoteurs qui me contactent. parce que tu es lan. mais je suis cher et je coûte cher parce que. parce que. Ketchup nag boo ko xamee xam ni c'est pas n'importe qui. te tëgg ma yombul. mais est-ce que est-ce que barke Serigne laa lay waatal. mais est-ce qu'il vous dire qu'il vous contacte pas pour que vous faites la communication de de.